li waral ndajale mi mooy am yitte am ci yaakaar akuk bëgg euh, nu jàpp ne it sunu dajee yëkkati sunu bëgg tënk ko ci ay kàddu teg ko ci loxol ki nga xamante ni saa borom dogal na maam Thierno yabal si ko fi muy alaaji ngañ saafara yooyu mm, dana dana dana dana dana dana dana yomb Euh, loola nag lu ci bëree bari jim na bay tàyyi mu mel ni euh, amagun ci dëgg dëgg dëgg lan soxla moo tax ñu di ko waxaat euh, danoo daje ngir bëgg ku ko ku former jigéen ñi defal leen formation waaye gune yu góor yi moom am nañu formation wax dëgg yàlla ndax ñoom ñëpp ay ouvrier lañ liñ manqué mooy financement looloon tax a daje tey jii bëgg ku leen ku leen defal financement waye itam ku defal euh, marché bi ay lampe ba mu am sécurité def fi ay euh, poubelle mbalit euh, ak ay buret yo xay man nañu transférer marché mbal mu sew mi diko ko ci poubelle ya ak ay zaratu ak ay pel, lol lol lol tax nu dajé bëgg maam Thierno dégg ak li ci doliku moy li nga xam japp na ne président moko man Euh, mu dekk ko muy mbedd mi taxaw di mbedd mu mag mu tàmbalee fii jëm Touba Fall jar kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi ci umul xuraa waaye tàmbalee fii jar bàq ya jëm euh, Aliya ba ba ba ba tidori foofu euh, mbedd la moo xamante bi ku fi dëkk xam nga ne sorti la boo xam ne bu ñu ko defaree dina dina ak jàpp ne lool ñu dëkk Jolof waaye ak ñu dëkk Kajoor ak ñu dëkk Bawol seen ci màggal gi ak seen ñibbi. mais kon man tey fi may jëlee kàddu mooy ci côté. développement ak dëkk bi fi laay waxee. programme bi ñu jël mooy programme mu liggéeyal askan wi euh, donc dégg naa fi sax ñu wax ay financement ak yeneen ak yeneen mais ci li nga xam ne maanaam moo gën a gun a nekk suñu taxawaay du loo xam ni dañ koy def ngir kenn li ñuy def dañ koy def ngir mbooloo mooy bépp quartier boo xam ne dem nañ fa. parce que financement soo ko defee defe naa looy delloo la ñun dañoo bëgg lépp loo xam ne dañ koy indi ngeen moom ko te du ngeen ko delloo loolu mooy suñu programme. wax nañ loo waaw loolu moom xanaa damaa jàpp ni luy saafarawu la ndax defe naa ni ma ko waxee sama biir wax nee naa jàppoon naa ni su ma ñëwee fii dañ may wax xalaat ay ay bëgg-bëgg yu gën a mu mbirum marché bi waaye ku dem ci marché Sam ba gis li ñu fa def tey nga xam ne fii bis bu ñu fi jaaree jaar jàll lay doon bu soobee yàlla bu ñu fi dellusiwaatee. waaw jaaroon nañ waaw loolu nag du nun loolu xam nga xam nga nag euh, affaire dafa yaatu kenn ku nekk nag gëm-gëm nga am parce que dañoo wax ni boo amee fukki xar mën ngeen a sàmm ci benn yat waaye bu fekkee ne nga am fukki nit da ngay dagg fukki yat kenn ku nekk ak yat ko nga koy sàmme donc kon bu may wax dinaa waxal président Macky Sall mais pour APR bu ma ci wax dafa am côté bu may waxee côté bi may waxee mooy ci mouvement bi nga xam ne seere nañ ko di di di ci liggéey monsieur le ministre Mame Thierno Dieng taxaw ci suñ ginnaaw ngir jàpp lañ ci lépp loo xam ne soxlay askan wi foofu laay waxee foofu nag yaakaar naa ci kàttanu yàlla maanaam kenn ñu xam ci digée lu ñu dul def parce que lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy bëgg bala ñu koo bëgg bala ñu wax dañ koy lijjanti ba ba am ko door koo wax te buñ ko waxee danañ ko def ci kàttanu yàlla waaw non message boobu moom li ma ciy tontu defe naa mooy li ma waxoon ci njëlbeenu wax bi monsieur le ministre Mame Thierno naa du réew mi ku politique rek mënoo tekk dara lool du réew mi réew mi kenn ku nekk mën ngaa nekk ci secteur ba nga nekk te boo bëggee liggéey di nga liggéey xam nga li am importance mooy nekkal nit koo xëy ne nit ñi gëm nga am sa nga moom sa kàddu li nga wax nga gëm ko te la wax def ko loolu mooy l'essentiel bi leneen li ci des nag donc ni ko ni ko sëñ bi doon waxee rek maanaam gaynde gi nga xam ne daa mar bëgg naan wuti déeg ba moom mbott mi nekk ci wet gi di ngoox ngooxe moom du ko tee àgg ci déeg bi naan ba man di dem yoon message bi ñuy lancé moom mooy lim ñu wax ci bi muy ànd ak ñun mooy ñëwuma pour def politique Touba bi ma fiy dugg Serigne tuubaa defal Serigne Touba moo tax ak jàppale askanu Touba moo tax ñi nga xamne nak dañu taxaw di wax lo xamne ne si dañuy san ay wala dañuy taxaw di wax nit bu dee da nga nek ci dëkk dem muno nit ñew pour jappalé la man gëm na ne da nga war accompagner encourager ko ci limi def mais do taxaw di ko jema fakassal fakasal wala nga am lenen loy def ministre mam Thierno Dieng dafa taxaw ni mom jëlul politiqueul mais nak amna ay xarit amna ay jarbaat yo xam ci lam nga xam ko wona def ñom ñoko ko fi nekkal diko ko defal diko japp jappal tank fi ndax ministre président daf ko fal bim ko falé euh sëñ sëñ Sidi mukhtar mom le président de mu jël ko joxe kon ngir politique dañ ko far ngir confiance aussi fal ko pour mu jappelé askanu Touba ni meuna jappelé Touba nak dimbali askanu Touba ci seenu soxla mais ñewul pour concurrence kenn ñewul pour xadal kenn aussi ñëwal pour jéem a guut base ci dëkk bi ndax moom yàlla teral na ko ba noppi li mu bëgg mooy dimbali askanu Touba jàppale leen responsable yi nga xam ne dañuy nekk di wax nag loolu moom wax dëgg yàlla war nañ ko mën a bàyyi ndax moom dafa ñëw la nga xam ne dañ ko tëlee dafa ñëw pour accompagner leen ci jàppale leen ci ñu jox président Victoire incha allah ndax suñu ko def Touba